L'air TV, la lumière du Coran et de la Sunna. Abonnez-vous. dimbale kon mbokk yi nañu xam ni jiite réew jiite dara kenn ku nekk ci ñun na yëg ni balaa mu koo def walla bu koy def na ko xool bu baax a baax a baax. ñoo ngi ñaan borom bi subhaanahu wa taala ci lii nga xamante ni ci lañ jëm muy am njiitu réew mu bees ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla may ko dëgër waaye yàlla sàmmal ko la mu jiite waaye may ko dëgër ba du nooy waaye na xam ni bis bu demee ba waat ba toog am na yuy ne ci kanamam na ko bàyyi xel gis nga sunu palais yi sunu conseil yi kuy jiite na nga leen bàyyi xel kenn du jiite ñu lay tagg bul nangu ku la taggal sa maam loolu tegu la fi bul nangu li ñuy tuddee ay géwélu pale bu ko nangu bul nangu loolu fexeel ba li nga diriger yaa waat toppatoo ko ñuy ñaanal ñi fi nekkoon te war fee jóge jamono bi ñu fiy jóge yàlla yàlla aar leen yàlla dëgëral leen réew mi jafe-jafe yi fi nekkoon nga xamante ne demoon nañ ba ñépp tiit man de maa ngi koy fan yi nee naa bis bu ma demee ba dem Dakar ñëw demaat ñëw seenu ma char de combat seenu ma policier séenu ma ñu taxaw di garde mel ni état de siège keroog fu mu ma fekk bu dee sama oto danaa gaare oto bi su jootal yàlla bu ma ko fàttewul ndax toll nañ ci jamono boo xamante ni foo génn daje gaay mu mel ni dëkk bi da nga naan lii état de siège la mais loolu loolu dafa war a jeex rupture dafa war a am mais réconciliation dafa war a am. entre population bi ak FDS yi parce que dem na ba ñaaw na ñaaw na ñaaw na ñaaw googu mu ñaaw mën nañ ko defaraat gendarme yi policiers yi ak ñu nañu dellu ci seen caserne yi noppalu jiwaat mbir mi metti na metti na ñoom te wallahi la fii laa ilaha gayru li may wax du sama wax de billahi wallahi romb naa groupe boo xamante ni ki leen dirigé dama taxaw di leen nuyu kooku ñëw ba ci sama wet ci yoonu sookoon bi ne oustaz ñaanal leen ñu ñu ngi déglu seen xutba mais oustaz ñun ñoo gën a sonn ci li na ci réew mi oustaz ñun mënuñoo dem suñu kër munuñoo lekk mënuñoo naan dara mënuñ ko gis nga fii ñu nekk nii añ sax duñu ko def wala bu ñuy añ 6 heures la wax wax ay naqar yoo xam ne ma ne non mbir mi munul demee ni mu ne ma billaahi oustaz population bi dañoo jàpp ne sii ni noonu lañ waaye dañuy sonn noonu ma ne ko mbéy mbaa jàpp nga ne am nañ ci juum mu ne ma d' accord am nañu ci juum mais du ñëpp kon loolu bis demee ba mu am wallahi li ñu doon ñaan am na lu luñ ci yàlla defal ñun ñépp nag nañu ànd ñu jàpp jàppale yoon jàppale liggéey ku nekk la nga war a def def ko incha allah ñu bañ a xam ni ñi dirigé nekkuñu ñoo xam ne ku nekk day ñëw sa kër mu tibb bu jox la de déedéet déedéet ku nekk la nga war a am incha allah ñaanal yàlla nga am ko ñu leen di ñaanal di leen ñaanal di ñaanal ñi fi nekk bu ñu ko defee incha allah yàlla mën nañoo dimbale.